maaleykum salaam mbokk yi ñuy teewlu ñëpp ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax a baax ci jotaay yi nga xam ne yéen a koy faral di ànd ak ñun waaye di ci di ci ziar bu baax a baax di ci ndokkeel suñu kilifa gi nga xam ne moom lañ ci àndal muy Serigne Mbacke Abdou Rahman di ziar di nuyu bu baax a baax yéen Serigne Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne mu daan taxaw jotaay bi waaye it ak it euh, mbokk yu baax yi nga xam ne saa yu ne ñoom la koy àndal muy Serigne Jiile ak équipe bi mu àndal ñoom Serigne Mouhamed Ngom ak ñoom ñëpp comme niñ ko defee woon ci jotaay bi weesu rek niñ leen ko waxee woon gàggantiku bi ñaare day doxee ci ñaari anam benn anam bi mooy léeg-léeg dañuy sopp ay bind ci fiq di ci fàttalante ñi nga xam ne xëy na gëj nañoo nafar waaye di ci xamal ñi nga xam ne seen àlliwa soriwut ci biir loolu it bu ñu fi ay question dabee danañ ko jagleel ab jotaay loolu mooy beneen anam gi ngir fàttalante ci wàll diine waaye it ñi nga xam ne dañoo am ay lënt lënt ci seen diine bu ñu indee ay masala sëriñ bi tontu leen ci laaj bi jàll am na ay question ay laaj yoo xam ne jotoon nañ koo tontu moom la ñu tam moom la ñu incha allah ci jotaay bi waaye balay booba ñu joxe numéro yi dañuy bàyyi suñu kilifa gi nga xam ne moom lañ toogal muy ki ñu baaxoo àndal jotaay bi bu ko defee mu daal di nuyoo ñu dalal ko buñ noppee soo ko dugg ci laaj yi kon sëriñ Mbacke ñu ngi nuyu. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Abdul Xaadir maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ànd ak ñun jotaay bi di leen ziar di nuyu baax it nu ko waxee sëriñ Abdul Ahad Bousso mi nga xam ne eh, ñoo seq jotaay bi te nga wut ko jotaay di nuyu sëriñ Abdul Xaadir Bousso ak sëriñ Mouhamadou Ngom mi nga wax noonu ñu seq liggéey bi ne ci xarala gi di leen eh, jaajëfal ci liggéey bu am solo bi. liggéey am solo la jàngal nit ñi seen diine yee leen ci loolu kenn defalu defalu nit lu ko gën ndax mooy wan leen yoon wi ñuy jaar ngir ñu mën a jariñu diine nag nanguwut làmbatu ñu ko xam ne sëñ Abdou Khadir kon jotaay yu mel nii ñu ngi koy rafet bu baax di siyaare ñëpp di siyaare baax waa daayira bi dafa seen taxawaay ci diine ji ci yoon wi sëriñ bi xam naa kon dañuy dugg ci laaj rek balay booba ñuy fàttali ne képp koo xam ne am nga sab laaj te bëgg ñu jaarleen ko ci jotaay bi

laaj dana egg si boobaa sëriñ bi dana ko tontu incha allah sëriñ bi xam naa kon uh, laaj bi ñuy jiital tey mooy bu ñàkk ne mbokk mi dafa diglu woon émission bi nga xam ne moo doon wax ci wàllu mbërëg ak gësin muy laaju ci wàllu regal moom muy wax ne kii dafa am ñaari soxna ndax mën naa waxtaan ak ñoom ba juboo ci ne bu kenn ki di gis régal saa yu ne mu may ak ayam ki ci des ndax loolu dagan na wala dëgganut uh, jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir Euh, maye ak ay ci boppam day dagan na ci lislaam waaye ci coobare jigéen ji ndax ay jigéen ji moo ko moom wéere di du ko xañ ngàntul lu mel noonu mu wax du ko xañ maanaam ki war a aye panaan bi bu wéere di woon nit fa la borom kër war a fanaan bu amoon ngànt bu mu ni suta jaxasoo moom fa la fanaan waaye nag moom moom ak ayam su ko neexee maye ko kon su ko mayee ne ko su ma amee ngànt mën ngaa dem ci ka ca des bu mu dagan waaye na fekk mu maye ko ci coobareem kon daal lu moom la saa yu ne mën na ko mayee mhm. euh, beneen laaj bi kii dafay laaj ne ndax booloo mooy seq ci diggante ñaari way dencante ndax lislaam teg na ci ay teggin yoo xam ne war nañ ko ci sàmmanteel wala déet jërëjëf sëñ Abdul Xaadir lislaam moom lépp lépp la addu lépp lépp la tudd ay teggin hmm. jaxasoo góor a jigéen am na ay teggin yu lislaam di sant nit ki mu di ko bàyyi xel ndax doon gi mu doon ab jullit hmm. bokk na ci teggin yi ci jiitu mooy na yéene hmm. ci jaxasoo gi yéene ci daf ndigalu yàlla ndax suñu borom moo digle ñu ànd njaboot di ci sosoo ngir nit ñi di yokk loolu jublu suñu borom hmm. moo tax na bunt boobu jaarle ko ci loolu yéene bu mu yéene mooy soppi loolu ak jaamu yàlla ndax su ci yéene loolu rek mu nekk jaamu yàlla aada dana soppile ku nekk abaada ndax yéene ju ci nit ki yéene bi ci des it lislaam bokk na ci tegginam ñaar ñu sant nañ leen ñuy set maanaam ñuy set ba noppi ànd ak xet gu neex loolu bokk na ci teggin yi ku ci jaxasoo ak ak waa këram mu mu set waaye nag am xet gu neex euh, bokk na ci teggin yi it bala ñoo jaxasoo ñuy waxtaan maanaam buñ ko tàmbulee euh, jonjoo rek kisaasa waaye kaf ak ak ak ak waxtaan di ko jiitu. dañuy mm-hmm. tudde mu daax ba. Mm-hmm. loolu sax na ci sunna Hmm. bi ci desit ñaan wala ñoo jaxasoon na ñaan hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na saa bu jullit di jaxasoo soxna wax bismillah hmm. allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana wax maa ngi tàmbali ci tur yàlla wax ya sama borom yàlla nag ñu musal ci saytaane lépp loo ñu wërsëgal yàlla nañ ci musal saytaane neen loolu ku ko wax laata mu jaxasoo soxnaam bu yàlla dogalee doom juddu ca doomu soosu ci jaxasoo googu seytaane du ko mën a lor mm-hmm. kon ñaan googu bokk na ci teggin yi nga xam ne bëgg na nit ki mm-hmm. di ko ñaan mm-hmm. bi ci desit mu tënku ci melokaanu yi lislaam santaane jaxasoo ci kanam la nit ki jaxasoo ak soxnaam anam gu mën a jaare nag te mu doon ci kanam lislaam du ko tëréwu nisaakum xarfun lakum faatu xarsakum wa anna shi'tum ji loolu la ko borom xuy tekkee waaye daal na doon ci barab bi nga xam ne fi lañ yaakaare doom di fa sosoo foofu la ñuy jaxasoo anam gu muy jaara bi ba defa nag lislaam sañ na ko waaye na doon na doon foofu loolu ci teggin mat bàyyi xel la bi ci desit euh, ku ci jaxasoo ki ba aajom matit bu mu bu mu bu mu te ka ci des aajom matut maanaam bu dee góor gi moo moo dem ba aajom mat te yëg na ne soxna si aajom matagut it bu mu daal téye génn mm. kenn koy daal ci teggeen islam bokk na ci na bàyyi xel moroom ma ci euh, fexe ba aajo mat ñu door a bàyyi lañ doon def bokk na ci teggeen itam euh, li xew seen biir ci lu ñuy seq buñ ko kenn gën di ko nettali saa bu nit ak soxnaam nekkee ci néeg seq la ñuy seq ak lañ lañ aju lépp hmm. di ca génn di nettali dara dafa xaram ci lislaam hmm. te génn lislaam nanguwut nit ki di di di di seqab soxnaam ba noppi génn di ko nettali hmm. yonentu islaam noonu bokk na ci yées ci nit ñi wàcc waay yowmal xiyaam waa joo xam ne day seqab soxnaam soxnaam seqak moom mu génn di ko nettali hmm. kon loolu jar na bàyyi xel ak lu mën a xew hmm. yooyu lu ñuy waxtaane bi ci des it nañuy sutur nañuy suturu suturu maanaam faaw wut dara mu leen euh, bokk na ci teggeen islaam saa bu jaxasoo ci guddi gi benn yoon ñu bëgg a jaxasawaat dañuy sant góor gi na jàpp jàpp moom lañuy wax ne dem wanag tuur ndox du ko toj ndax jàppul ngir loolu jàpp moom mel ci teggi la bokk buy buñ teel a sangu it bokk na ci li gën suñ ko mënee def bala ñoo tëdd nelaw ñu sangu bu dul loolu it ñu teel a yow fajar balaa waxtu weeraw ñu sangu mën a julli ci waxtu muxtaar loolu daal sëñ Abdou Khadir lenn la ci mm-hmm. eh, teggi ni jaxasoo yëpp mm-hmm. solo kon mooy nañ yéene xam ne a jaamu yàlla la ñuy def hmm. bañ ci jàpp rek bànneex ak euh, jàpp ne foofu la yem hmm. déedéet ndigalu yàlla hmm. moo leen am tuyaaba loolu xarit bi waxoon ne euh, bu ko laajee ne ko ndax nit ki day dem ci soxnaam am ci tuyaaba mu ne ko ndax bu demoon ci jàmbur du am bàkkaar mu ne ko axakay ah, mu ne ko na ko noonu li nga war def boo ko defee fi nga ko war def te yéene ci lu baax yu baax dañ ko am tuyaaba am ci la la jërëjëf yaakaar naa teggin ñi bari na lool waaye liñ ci wax yëpp mm-hmm. waxuma la dara bu buñ koy xool ci lislaam rek waaye ñu koy xool ci ak ñitte rek mm-hmm. ak yit lu yenu maanaa da ngay gis ne mm-hmm. euh, xel nangu na ko bu baax a baax ci ni ko lislaam euh, tërale euh, am na beneen laaj bu aju ci wàllu kooku kii day laaj ne ndax jumtukaay yu bees yi lu mel ni yenn garab yeeg yenn médicament yeeg yu mel noonu ndax nit mën na koo jëfandikoo ngir gën a yàggal Euh, ak diggante bi mu booloo ak soxnaam. waaw bu fekkee ne daa jàpp ne daa wére di wére xam ne diir bi mu bi koy def daal daa gàtt ba ëpp. Hmm. te jàpp ne aajo mënu cee faju hmm. wére waaye nag liñ koy fajee dañ ciy bàyyi xel ñaar bu mu doon loo xam ne jëfandiku ko daa araam. Hmm. maanaam bu dee masalan ma boo xam ne sobe la. du ko sañ jëfandikoo. lu ñuy naan kenn sobe kenn du ko fajoo. yonente Yàlla mooy sax nee na defut ci lu mu araamal ci yéen ñaareel bu mu doon luy lore maanaam bu mu loo xam ne nag lii kat bu ko defee dana am kàttan nangam waaye nag baaxut ci wér gu yaram islam kon bu ci lor amut liñ ko defee doonut lu ñuy tere ku jëfandikoo nit ki sañ na ko jërëjëf ndax day la hmm. man na ko fajoo waaye li ñuy fajoo hmm. lislaam santaane ñu fajoo li fajoo na laab ba noppi it na bañ a am lor waaw mbokk mi moom dafay laaj ne ndax ab jullit sañ naa jënd marchandise yi nga xam ne euh, duwaan yi ñoo koy nangu ci nit ñi ba noppi di ko jaayaat yaakaar naa loolu it luy am Sénégal la comme lu mel ne xeeti oto yi rim yi ñu nangook yu mel noonu da ngay gis ne douane bu ko nangoo day organiser benn bis boo xam ne day ñëw bu ñëwee da koy exposé ci kanamu nit ñi am ñoo ku fay prix bi ko bi ko gënal mu jaay mm-hmm. ko ñi ko ñiñ ko jaayaat nag ndax mën nañ koo jaayewaat wala deet waaw xam nga daa mel na ci wàllu googu dañuy wax ne duwaan bu fekkee ne lu tegu ci yoon la lor la dañoo samp loo xam ne ngir aar réew mi aar seeni koom-koom ba tax ñu ne lii bu kenn def koo def kat dañ la daan wala nga indi fi loo xam ne dañu lii ku fi indi dañ ci war a fay nangam suñ ko téyee diir sàngam fayoo ko cees danañ ko jaay nga xam ne yow xam nga ne lu waayuñ tër la nga xam loola ba noppi xëttu ko day mel ne ñoom bu baax buñ koy jaayee ci yoon lañ ko jaay souvent nag génn ko dara nekk ci hmm. amma bu doonee loo xam ne nag noggutu la ëpp doole la hmm. bëgg a bëgg bëgg jaay doole nit ñi la wala bëgg a favoriser ñenn hmm. ñi ci des ñu xañ leen su boobaa nag loola alal jàmbur la kenn ko ndax ki ko nangu nangu ko ci yoon ci misaal léeg-léeg ñu ne marchandise sangam dañ koy tere ci dëkk bi ndax lan day marchandise moo xam ne baaxul ay nit di ko faroon di ko fi dugal kooku yoon sañ na ko jàpp nangu su ko nangoo sañ ko jaay ndax ñi ko def teguñ ko ci yoon boobaa ko ko jënd ci yow ci ni ñu ko baaxoo jënd lu baax nga jënd naa loo xam ne nag dañoo am ku fi yor ko ñu ñu bëgg ñu bëgg koo bëgg koo dimbale tax ñu ne bëgg fi kenn andi te nit ñi mën ko am feneen ci lu gën a yomb te duñ lor koom-koomu réew mi mm-hmm. nga xam ne lor ci waaye te njëriñ a ngi mm-hmm. subaa nag ku lijjante bi dugal ko fi sañ nga ko bi ci desit ku ko nangu alal jàmmal ko nangu alal jàmbur jooju nag kuñ ko jaay nga xam ne al jàmbur la jënd ko yaa ngi dimbalante ci bàkkaar mm. kon faaw ñu xamee ñaar yooyu mm. ndax li duwaan nangu nangu tegu ci yoon la ay luwaa yu leer la yoo xam ne lor réew mi ci ne mm. ba tax ñu tere ko su boobaa buñ ko jaayee sañ bu ci yooyu nekkoon nag sañ kon faaw ñu bàyyi xel ñaar yooyu sëñ Abdou Khadir ok jërëjëf mm-hmm. euh, beneen laaj bi yaakaar naa xaw naa léegi laaj boobu jàll kii dafay laaj ne ndax nit a jullit sañ naa woteel président boo xam ne leer na ko ne mm-hmm. loi yi mu teg day wuute ak àttee lislaam waaw bu fekkee ne daa am ñaar ñuy xëccoo kenn ki moom fas ne taxawal lislaam bu mat sëkk hmm. ak koo xam daa wax fee moom taxawalul lislaam su boobaa moom ku ànd ak kii xeex lislaam yaa ngi jàpp leen jàppalante ci bàkkaar hmm. amaa bu ñëpp bokkee yoon wi du ñàkk ca tane hmm. mën naa am ñoom ñëpp ñooy atte ci atte ci luwaay yi luwaay adduna yi yu dëpp wut ak charia waaye am na ci koo xam ne xëy na moo gën a rafet yéene waaye man naa am buñ ko jàppalee mm-hmm. yii fi nekk nii da ko fa fekk waaye am na yéene tere ko mm-hmm. su boobaa day mel ne eh, axafu dararayn mm-hmm. irtikab axafu dararayn xaayida buñ xam la ci ci ci ci ci charia kon day mel ne duñ wax ne saabu nit ki dee tërluwaay yu baaxul rek kenn waru ko wateel waaye moom ñi mu fi bokkal seq kon saa bu ñuy wate ci bu fa ku baax ak ku bon nekkee ku baax ka lañ war ku fa bàyyi ku baax ko wateel ku bon ka yaa ngi dimbalal ci bàkkaar bu fa ñaar ñu bon nekkee nag am na ku gën a bon nañ jël dañ tànn ki tane ndax ñaara maanaam nga tànn ko wala nga seetaan ndax boo seetaanee it mu jàll lam yi def doo ci mën dara boo liggéey te ñaaree bu fekkee nit ñu dañ ko jàppale rawatina bu ñu jàppale bu dee boroomi mbooloo borom doole mën nañ koy jàppale ci kaw yu sar nangam ji neexuñu fi boo dikkee dañ ci taxaw suba loolu ñu ngi jàppalante ci dox ndànk jëm ci lu baax ndax yu yu safaan yi fi nekk yëpp kat diine yi ñëwuñ xëy dindi ko benn yoon hmm. mooy dañ koy def bi tadrij hmm. di tere ndànk-ndànk hmm. kon ci buntu boobu ma ne sañe jaar ba tere lañ war a tere kon duñ wax rek ne saa boo watee lay koo xam ne teg na fi lu waayu baaxul def nga lu bon waaye moom ña ñam dool xëccool moom ñoom ku tane bu fekkee gisoon ne moo fi tane te it jàpp nga ne mën ngaa jaar ci moom ba am li nga bëgg su boobaa ci buntu boobu lu baax lay doon kon daal saa yu ne dañuy xool ki fi gën mhm. buñ ko amul ñu xool ki fi tane rek mbokk mi moom dafay laaj ne euh, dafa dégg ñu naan euh, jigéen kàddoom awra la mhm. léegi mu ne kon lan mooy àtteeb jigéen ñi nga xam ne dañuy bokk ci concours général yeeg concours mhm. alxuraan yi am ci biir réew mi ak bitim réew ba noppi di yëkkati seen kàddu euh, laaj bu am solo la sëñ bu xaadir te tasaaroo waaye nag dëgg la ci masab mali bi ñu nekk moom jigéen di yëkkati kàddoom di ko neexal dañ koy tere Eh, wax nañ ne Sëriñ Abdou Khadir Mbacke radiyallahu anhu mas naa wax lu mel noonu ku doon yëkkati di jàng mu noppaloo ko daan ne eh, bu daganoon ñu nodd loolu ndax ñoo dàq baat ñoo gën a neex baat kon day mel ne yu mel noonu bu dee rawatina koo xam ne baaleex la baaleex la àgg foo xam ne mën naa jeqi bànneex ndax bàyyi xel sëñ Abdou Khadir nit ji moom yëpp la la la ci lañu ci ci ni ci jariñoo noonu lañ ci loroo yenn borom xooy wax daal nga xam ne ñu mel noonu lu tane woon ndax bokk ci mel noonu ngir encourager leen nag xemmem loo nit ñi alxuraan baax na waaye bu fekkonte ne ñoom bu ñuy tari alxuraan duñ ko neexal hmm. dañ koy tari rek niñ baaxoo waxee hmm. du tee danañ jàng-njàng ni mu suba mooy gën a woyof ñu ko neexal neexal goo xam ne day mel ne bu loolu daganee rek hmm. ñu yëkkati leneen di ko jàng day daal dagan te day mel ne moom liñ xam mooy duñu nodd bu ñuy julli duñ béral fu ay góor nekk xëy na kon bu fekkoon te dañ leen ber ñu nekk seen musaabaxa bopp ay jigéen di leen saytu wala seeni maxaarim boobaa fañ ne keneen néew fa kenn ku ku jël kii ba déglu ko yow yaa def loolu yoon waaye ñoom fañ ko doon dafee ñoom dong ñoo fa ne su waaye dara nekku ci maa na ci biir góor ñi moom loolu jàpp naa lu ma ta bàyyi xel la donte eh, tasaaroo na ba bari mm. njariñ yu baree ngi ci ndax xamem lu alxuraan nga waaye nag lu mën a xew it di bàyyi xel li diine di tëral baax na kon fexe woon ba wutal leen seen concours bopp ña koy saytu it doon ñoom ay jigéen ni ñoom wala buñ dee góor ñu doon ay maxaarim ci ñoom nga xam ne boobaa ñoom dégg seen i kàddu duñ ko bañ boobaa baax te it jàpp lu ma a nekk la ndax ni amee ay jàmbaar ci jàng alxuraan ci góor noonu la amee ci jigéen kon war nañ leen mën a defal seen i concours bopp ñu ci am ay ndam di leen gën a xemmam alxuraan di leen joxe neexal waaye nag di ko yëkkati di ko neexal ci kanam góor yi moom jar na tey jar na tey moom yaakaar naa sëñ bi xam naa fu mel noonu sax mën nañ cee dugalaale lu mel ni xasiida yeeg rajas yeeg kuréel yeeg sikar yooyu yëpp waaw ndax fi ne saa boo saa ko nangoo rek da nga war a nangu yee war a nangu yee waaw ndax sorewuñ kon ki yëkkati xasiida ngir ne day jaamu yàlla wala day zikkar yàlla dañ day bokkaate bu baax sax nag lu tey nga nodd loolu leen su boobaa te xam nañ ni ci sariya kenn du def la loolu. te kàddu kàddu googu la ñuy sàmm. kon jàpp na lu mat a bàyyi xel la. Mm. wante lu lu siiw la lu tasaaroo na waaye mën na bàyyi xel bu baax a tey li nga wax ne euh, lu mel ne lu mel noonu organiser ko fexe ba ay jigéen rek di fa teew wala koo xam ne seen maxaram la mm-hmm. am na ci solo ndax dafa mel ne bu ñuy nettali jaar jaar yi sëñ bi daanañ ci wax lu mel noonu mm-hmm. dañu wax ne waa këram daanañ kuréel waaye ci seen keesu bopp mm-hmm. koo xam ne moom rek moo leen daan dégg moo leen daan répéteel jàpp naa ne mën na mën na gën a soññaat nit ñi bu baax a baax daal surtout ñi nga xam ne dañoo jug jug mu bees bëgg lu baax ba tax ñuy xeer bay def loo xam ne it day wuuteeg Euh, li lislaam santaane waaye day wuteeg bëgg-bëggu sëñ bi na fii ci biir dëkk bi ak fépp foo xam ne murid yi dañ fa nekk waaw am solo la hmm. ndax loolu mu wax gër na ne sëriñ bi daan na leen dugal ci roq hmm. wax leen nuñ koy yëkkatee waaye ne leen ñoom dong ñoo koy dégg hmm. ndax tudd yàlla la niñ ko sant ñëpp waaye ñoom nag daa am nuñ leen santee tudd yàlla ku ci beru di julli wala nga ne ci sa biir njaboot da ngay wax ci kaw beneen gi ñu leen tere mooy buñ nekkee fu keneen dégg la kon loolu comme ginnaaw julli mooy jaamu yàlla gën a màgg jaamu yàlla lañ ci jàng ci alxuraan kon fa la gën a jaadoo mm-hmm. foofa dañ leen tere ñu béral fa mm-hmm. kon nag mel na ne feneen it mm-hmm. di neexal ci anam neexal moom ñaar yi mën naa am neexal bi wala boog ñu ber leen te ber leen mu gën a di te it mën nañ ca am lu ñu soxla lépp ndax mën nañoo fexe ba ñu am munaafasa sharifa boo xam ne ñi jàmbaare ci wàllu googu ñoo leen di saytu wala seen i maxaarim saytu leen mm-hmm. neexal yi jox ñu di ko joxe góor ñi am seen ba seen yos jigéen am seen yos mm-hmm. subaa nag ki jël ab kaset bu xam ne jigéen a di ko déglu moom mm-hmm. moom moo def lu ñuy tere ah. ndax kenn néewu ko demoon nga ñoom seen i moroomi jigéen mën nañ ko jël di ko déglu jële su noonu mbokk mi moom dafay laaj ne nee na xam ne day dund ci euh, barab boo xam ne day mel ni daal ni Touba bindoo noonu la bindoo nga xam ne day bari ay juma yoo xam ne dañ fay joxee julli ay juma mm-hmm. far yàlla dogal juma ji ko gën a jege bi muy waaj bay génn fekk ñu julli ba mm-hmm. ndax mën na koo jéggi dem ci beneen juma joo xam ne mën na faa joxe ay juma waaw bu ko leeree ne euh, foofa machaqa nekku ci mm-hmm. tey bu fa demee dana fekk julli ga kooku ajjuma war ba tey kan la ko ajjumee wàcc julli nañ ba noppi te amul feneen fu mu julli ajjuma kooku muy a jul tisbaar waaye day mel ne comme ay jumaa ngi fi ngir aajo ndax jumaa yu bari bu ko aajo waralee dagan na waaw te ñu bare yu mel ni ñu ko xamee xam nañ ne ni muy bare bare na ci yoo xam ne fu ci nekk bu ajuma day fees dell ba ci biti kon day mel aajo la mm. su boobaa nag nga jógee fii mën a dem feneen fi ci dootul mashaqqa bu metti boo xam ne da mm. bu fii jullee da nga war dem fa ca des mm. la leeral nag ne ñoo jullee ndoo boo jógee fii wala boog bala nga àgg fekk ñu julli ñu noppi nag am nga ngàntul ndax ajjuma kenn du ko julli yow kenn mhm. boobaa da nga julli tisbaar waaye doone rek sama jumaa julli na mhm. kon naa julli tisbaar te xam ne am na yeneen jumaa yu la soriwut mhm. te boo ko demee mën a julli ajjuma kon na nga xam ne ajjuma la war ba léegi euh, ñaari laaj yi yaakaar naa mën nañ koo boole muy benn laaj kenn ki dafay laaj ne moom dañoo daa dégg jumaa ji sone rek fu mel ne Touba ak yenn barab yi nga xam ne dañuy sone toog ab diir fukki minutes soog a nodd daa dégg ñu sone rek ndax boobaa sañ naa julli avant ñuy nodd keneen ki di wax ne moom dafa baaxoo naafila ci guddi gi mm. ab lim lu mel mm. ne euh, fukki rakka léegi ndax sañ naa naafila moom it avant ñu nu duggee waaw xam nga julli gën a sone sone ci boppam nag sëñ Abdou Khayr lu moo tax xool la dëgg-dëgg sone mooy lan mm. mel ni saaro na fii waaye liñ baaxoo xamle waxtu tàbb julli mooy nodd buñ delloo ci saanul lislaam yu mel noonu am na ñu ko gaaraloon yonent bi sallallahu alayhi kon day mel ne li li baaxoo xam xamle waxtu julli moom mooy nodd bi ci des liñ baaxoo def xam fi mooy ne jamono yi ñu sone moom nodd waxtu tàbbeegul dañuy wax ne bu waxtu wi desee nangami minute lañuy sone ngir wan nit ñi ne leen waxtu wi jege na hmm. day mel ne loolu lañuy wax saa boo jullee te waxtu jotut julli ko baaxut moom hmm. kon kooku yi wartu julli na nekk bañ nodd mbaa boog mu xam ne waxtu jot na hmm. ndax nodd gi moom day xam ne waxtu jot na rek léeg-léeg nga gis jàkka joo xam ne wax day jot lu yàgg duñ nodd mm. léeg-léeg nit juum mu nodd ci waxtu yu jotu mm. luñ ci mën doon nit ki liñ ko sant mooy buy julli waxtu jot day mel ne li war doon yittee ku ne daal mm. mooy nga jéem a xam te léegi yomb na bis bu yàlla sàkk ay mbokk jullit yu bari ñi ngi tasaare waxtu julli yi bis set ñu wan la ne tey tisbaar takkusaan timis gee su bu ci nekk waxtu sàngam la bala nga julli xoolal loolu su waxtu jotee moom buñ noddee buñ noddee mën ngaa julli donte li gën mooy nga waaye faw waxtu jot hmm. kon su waxtu jotul hmm. kenn du julli hmm. te sone nañ koy waxee fii eh, waxtu jotugul fenn rek la ñuy sone waxtu jot fenn mooy koor koor moom waxtu wu ñuy sone waxtu nodd nodd la ci dëgg-dëgg nodd lañ fa waroon def nit ñi xam ne eh, julli jot na dog jot na julli jot na bu ko defee ki ki ki ki wóorutoon te am ngànt te mën a bëgg a julli mën a julli am maa naafila bu fekkee naafila guddi la nag hmm. liñ ci taam mooy mu nekk ginnaaw gee hmm. kon diggante bi sa gee li ñuy julli guddi hmm. moom jubluwuñ ci waxtu ko faaw dañuy gee day jot nga doora euh, ñu door di wax wax yi dina julli guddi mook tarawee yi wax yëpp ginnaaw gee lañ koy def kon seen muxtaar mooy ginnaaw gee ju wér ba fajar kon day mel ni ku bëgg naafila guddi moom bul diggan diggante timis ak gee foofu du waxtu mën nga wax def say naafila nag mm-hmm. muy naafila yu topp ginnaaw timis mm-hmm. waaye bu fekkee da ngaa bëgg def julli guddi mm-hmm. moom na doon ginnaaw boo jullee gee te gee ji nekk gee ju wér nga xam ne julli nga ko ci moxtaaram dañ lay wax sax ne la bu boo waxtu yi boolee dagan mu doon taw timis ak gee ñu boole ko ci jàkk ji kenn du naa naafila ay safaabitra yëpp te demoo bëggee jot ndax dañoo jiital booba gee te waxtum jotagul waxtu jot nga door def ndax naa muxtaarum naafila yooyu mm-hmm. eh, geele yi lay tàmbali geele tàmbali mm-hmm. ok jërëjëf sëriñ bi xam naa kon laaj bi ñu mujj rek mooy moom laaj la boo xam ne dafay root léegi mm-hmm. kii moom dafay wax ne day faral di julli tusbaar wala gee muy julli ñeenti rakk waaye daal day seetlu ne ñaari rakk yu mujj yi nga xam ne faatiya rek lañu santaane ko ci jàng léeg-léeg da ci teg aw saar te du ko yëg waaye saa yi demee ba yëg ne teg na ci aw saar rek ba ne dafa juum day gaaw daal di muy laaj na boobaa nu muy def ndax day sujjoot ak nu muy nu muy doxale daal waaw xam nga li ñuy wax ñaar rakka yu mujj moom dolli aw saar warut ci hmm. faatiha rek ci jàng waaye ku cookoonu saar dara warul ndax hmm. xeetu la donte moo ko tey defut lu gën waaye dara warul hmm. kon bu jëmee def ko it dara warul ko saa yu fàttalikoo ne eh, mi ngi yokk it fa ko fàttalikoo la day taxaw waaye nag lam jot daf moom dañ koy jéggal boobu dara waru ci Mm-hmm. ok jërëjëf sëriñ bi xam naa dafay mel ni waxtu ñu seddoon fi ne cate na mm-hmm. te laaj yi xam naa def na des na lu bari waaye incha allah danañ ko topp toppandi ci yeneen jotaay yi ñëw mm-hmm. bu ko defee ñi nga xam ne euh, jàlle woon nañ seen laaj danañ fexe bañ tontu ko ñi nga xam ne seen laaj jot a jàll buñ jaaree ci numéro yi nga xam ne moom lañ njëkkoon a wax dana jàll incha allah te numéro yi mooy 77 531 91 98 ak 77 578 57 76. xam naa kon sëriñ bi dañ lay jox nga daal di euh, tàggatoo bu ko defee ñu daal di yëkkati jotaay bi ba pare ñoom incha allah. jërëjëf sëñ Abdou Khadre ñu ngi lay dellu di nuyu ñu la jaajëfal am na solo lool ci jataay bi ñaan suñu borom daf ci barke. daf ñu defal ñu dégg ak topp. di siyaare mbokk ñëw yu topp ñëpp di leen ñaanal jàmm àddina ak àllaaxira di sàkku ñaanal ñu ko. Hmm. di ndokkeel mbokki daayira bi yëpp ci taxawaay yu rafet yi ni mu ko waxee ñaan sunu borom gën leena a dooleel gën leen a dimbale. Mm-hmm. di nuyu seen blaxaat uh, ak mbok yëpp ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi sëñ Abdou Khadir. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon Serigne bi ñu lay sant bu baax baax ci turu daayira bi ci turu Serigne Abdou Lahad Bousso mi nga xam ne mu daan taxaw jotaay bi waaye ci turu uh, mbokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal saa yu ne ñu nekk ci wàllu xarale gi te Serigne Abdou Khadir Bousso jiite ko ak Serigne Mohamed Ngom. waaye di sant it mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi doon teewlu ci jotaay bi ak fu ñu mën a teewloo rawatina ñi nga xam ne ñooy topp euh, jumtukaayu xarale bi nga xam ne mooy euh, jumtukaayu daayira bi nga xam ne mooy fésal bépp xew-xew bu aju ci wàllu jumaa ji wala muy aju ci wàllu diine te muy jaar ci télé jumaa ji te mooy MK TV kon képp koo xam ne mu ngi topp site bi di topp télé bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di leen taaxirlu incha allah ci yeneen laaj waaye di leen xaarit ci yeneen jotaay incha allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam